ñaari mandat yi juróomi at yu tegaloo léegi mandat wu ñaari at bi moom daa daganul woon. waaw xam nga man je suis pas un technicien côté boobu du mu si xaw a sori parce que ñu aussi dangay wax euh, li nga xam ne xam nga ko mais man aussi waxtaan naa si ay kilifa mag euh, am na kenn xam ne maanaam jàngal na ma euh, moom jàngal en droit mooy le professeur Mounir Sy jàngal na ma à ak ñeneen ñoo xam ne aussi waxtaan naa ak ñoom mais li ñu wax ni ne président am na droit. présenter troisième mandat yoon constitution bi may na ko man nag li ñu ma wax si li nga xam ne man moom laa jàpp leneen nag lu des mooy yépp nag mu ngi tegu si boppu le président Macky mu wax day dem wala du dem de toute façon ñun joxe nañ suñu position man je le fermement que joxe naa sama position que moi je le soutiens haut et fort. ah fi mu nekkee sut mënoo soutenir ku dul Macky nag moom <laughs> ah. ku la abal laa kii ngay naaw moom nag faaw moom ngay soutenir ay dina jafe de. ndax seen texte yi texte ko bindee yéen a fi indi. waaw mais référendum ñu voté constitution bu bees. jamono ji ko fi indi nag ngeen ni mandat boobu moom boolewuñ ko ci changement wu constitution Habib loolu itam waaw mais xam nga le problème mooy ne c'est ñuy jugé xam nga tey bu ñu waxantee éle bu ñuy élection nañ def parrainage mais nañ def parrainage xool dëkk bi yëpp saa yu léegi nañu imposer parrainage ne képp nañ ko teg nga xool ñun de à notre niveau pare nañu à ñeneen ñeneen pare nañu moi je vois beaucoup de gens xam ne ay pères de famille xam ne li ñuy ah en tout cas kii nga xam ne de maanaam baax na si dëkk bi ñun boo laa yaatee dañuy ànd ak moom. seen seen infrastructure yi ngeen yemale Dakar ak Diamniadio it nag loolu it nag te ngeen koy bàkkoo toujours mel ni Dakar mooy day Diamniadio ak Sénégal loolu itam ça pose problème Habib vision jam ñaajo rek. non non vision jamu sax xam nga li la fa Idriss nga fa ne. waaw non xam nga Thiès moom bu ñu wax Idriss moom dafa wax mooy aujourd'hui a que Thiès waroon na romb fii Idriss n'a rien aujourd'hui pour aller à Thiès il faut mun nga def 20 minutes. man damay dem Thiès rapidement ñëwaat la preuve mooy démb dem naa fi Thiès ñaari dem naa fi tudd benn dem naa benn ngénte le soir ma del am ko Thiès pour benn décès parce que man moom yàlla daf ma bind dama toujours jege sama askan mais am na temps yoo xam ne sañu ko def il faut dire que aujourd'hui surtout aussi li may faral di wax toujours actes yaa ngi nii les actes sont là te aussi y a beaucoup d'aménagement à Thiès si wàllu infrastructure et puis y a l'autoroute à péage yoo xam ne moom mooy dem Thiès ba Tivaouane dina gën a yaatal suuf bi et puis entre Thiès te Thiès tey nu mu développé tey gisuma tey pratiquement beneen ville au Sénégal bu ko développé. comment xam nga fay waxee boo xam ne à quatre cinquante te Thiès un appartement boo amul deux cent mille deux cent mille francs appartement bu baax parce que pourquoi maintenant Thiès ngi développé si wàllu infrastructure si wàllu yu bëri bëri aujourd'hui à Thiès lenn rek on a un seul défaut sa Thiès mooy surtout si wàllu l'employabilité des jeunes parce que dañuy wax Jakarta te Thiès moo ëpp Jakarta man ak si Sénégal il faut le dire même kaw la nga gis. loolu loolu baromètre la de buy wane ni doxul de. waaw non non dox na xam nga le problème aussi mooy lan. parce que ne tey le président public jox na la ay ndomb tànk. mais dañuy wax prenez le cas man de gisuma si vraiment ñi nga xam ne maanaam surtout nos c'était nos alliés président jox leen ay postes de responsabilité amuñu lenn lu ñu def Thiès il faut le dire haut et fort def ñu dara. ah. ah ci wàllu boobu. maanaam kooku lañ joxoon poste de responsabilité. non jox nañ ko poste de responsabilité. waaw. nekk na fi maire Thiès naanaka Thiès dirigé na ko ak ay ñoñom pendant longtemps nee mooy. moom mooy buuru Thiès finalement. <laughs> Lamine Dière dafa parce que candidat waaw xam nga aussi affaire boobu sax vraiment dafa ñaaw man de à toute sincérité président deful ma dara yàlla xam na ne fi ma nekk sama compétence moom fa yóbbu man bëggal. est-ce que waa ñëw la gis nga administration non xam nga administration c'est continuité. waaw non Grand Dakar ay n'oubliez Grand Dakar moo Euh, moo ëpp doole même Guédiawaye département de Guédiawaye ah, parce que boo xoolee tout ce qui est man actuellement j'ai plus de quinze kilomètres carrés environnement yoo xam ne maa ko géré superficie man le début j'ai géré ay dix kilomètres carrés laa doon géré le ah, département de Guédiawaye waaw non surtout ça léegi concernant léegi waaw concernant le cadre Idriss xam nga ñu à toute sincérité man il est venu man il est venu me voir à la maison ñëw na sama kër seetsi ma fois sàkk na ko mais bi mu ñëwee la première chose lu ko a mooy ma photo avec le président Macky Sall. dëgg dafa dugg sama biir sama rek gis photo bi. lii loolu. non xam nga lu waral mooy la man ñëpp xam nañu man sama loyauté ak sama fidélité envers le président. parce que man bu ma gisoon leneen loo xam ne gis naa ko si moom dam koy dam koy ba ma parce que j'avais un mouvement national moom moom ma sàkku ne moom ma jël sa mouvement ma seer ko affaire mais toujours j'ai maintenu ma base politique. Idriss boo xoolee élection yi jot ñëpp ñu ànd ak moom gis nga tey aussi parce qu'on a fait mauvais casting à Thiès euh, Thiès xamante nañu élection législative à municipalité yi parce que aujourd'hui les Thiessois se connaissent se connaissent très bien xam nañ ñu leen amal njëriñ man la preuve est là man mi sama problème mooy mooy la mais mu di président du ñu voté parce que ki ñuy voté ki ñu bëgg a teg nii du ñu ànd ak moom. et eh, Habib loolu nga jékki waaw c'est-à-dire problème mooy xam nga man aussi ndigal laa topp rek. parce que aussi nit bu may ànd ak moom damay man ñun suñuy jàngalee suñu wàllu aada dañu am benn système xam ne ñii da ngay respecté gis nga ñu ba léegi man mon grand frère c'est notre aîné fii un grand cadre de l'administration nekk na fi dëkk cabinet Abdou Diouf tey bu ma defee dañu ne eh booy bàyyi li ngay def je laisse parce que c'est mon grand frère ñun si yoon moom la ñu yaree ñun on est respectueux dañu discipliné envers man j'ai un grand frère na ma trois ans mais lu nekk la may wax mais je dis grand j'accepte bu ne nga xamante nañu Thiès parce que nañu askan bi xam nañu suñu yaay suñu jeunes yi lan ñu soxla biir Thiès on est de projets yoo xam ne ak lu ñuy def waaw bàyyi ma nekk tuuti nga baal ma léegi si loolu dem nañu boo ne non écoutez nangam nangam ni nii non ci Ibou Idi suñu colère la suñu nawla la comme Thiès la nekk dañu bàyyi ma ne président Idi du dem xamante nañu Thiès ces gens là xamuñu leen ils vont pas partir laissez nous partir ñun ñii. mais pourquoi mais... est-ce que yéen par exemple ku mel ni Habib Niang deful comme. Euh, benn Mamboy Diaw fële ca Kolda ba ñu ñëwee teg benn choix mu ne man du ma ànd ak choix bi je préfère demal sama bopp wan leen ni am naa sama doole ba mu demee gagné mairie euh, ah. am na keneen ku ko def ci yeneen localité pourquoi ah. est-ce que yéen parce que c'est le choix de Macky Sall que vous avez contesté ne ni choix bi d'accord ñu ci parce que ñun ñu nekk ci réalité bi xam nañu ni euh, mérité wu ko wala euh, amatul base boobu mu doon sàkku lu tax leen wanewu leen seen doole leen léegi bàyyi ñu demal suñu bopp Euh, xaw ma liste parallèle ni ñu koy wooyee. waaw liste gañe comme ñeneen ñi ni ñu ko defee. waaw xam nga le problème qui se pose man dama dama man discipline de parti la respecte effectivement un moment bëggoon naa fupp dem sama gars toog nañu bëri ñu ba deux ni ma ne ma président dañ dem am na sax ku ma bëggoon ab récépissé ma je le fais pas. Hmm. parce que man du ma créer rébellion discipline de parti la respecte ba Mahmoud Saleh si boppam on a parlé longuement téléphone mu ne ma léegi Habib si c'est comme ça demal ma ne ko non ma demal man je respecte boo ma décidé bu ma décidé ma ne diw laa àndal Birahim laa àndal am naa droit ko sama gëdd sama cër. président par respect moo tax ma respecté li mu wax mais aujourd'hui ils ont vu ce xam nga parfois aussi les gens ne donnent des mauvaises informations non li may faral wax toujours on se connaît à Thiès. on ko ni kii kii population aussi xam nañ ku leen amal njëriñ parce que nit ku la amal njëriñ nañ nekk ku la Macky Sall non non c'est-à-dire que pas ñun suñu bopp amal nañ njëriñ askan bi parce que ñun aussi on est des représentants euh, du président au niveau des départements de Thiès région de Jidé même de région de Thiès je dirais amoon ñu yàlla séddu lu ndaw ndaw dañ koy dem partage avec la population. yow loo def pour emploi des jeunes. bon surtout emploi des jeunes man. côté boobu laa ñëw man j'ai fait tellement de formation man créé naa plus de 150 gardes rapprochés à Thiès. actuellement booy ñu ngi liggéey dans les dans les sécurité si wàllu permis de conduire xale yu bëri tey ñu ngi dawal Thiès. tey pour dire chose regardez ce qui se c'est des gens que j'ai formés ñu ngi yore seen autoclando di dawal di daan seen doole récemment gis ngeen ko dans la presse ay yeneen aussi mooy am na jeune yu bëri aussi dafa naan information maintenance informatique même fii ma nekk au niveau de mon de mes je prends des stagiaires pour les former pour ñu leen moyen leur expérience ailleurs je le fait def na pour aussi concernant les femmes def na ay formation yu bëri si wàllu transformation ay gerte caaf ni ñu defee les paquets di leen def ay yeneen yeneen à def naa ko tey aujourd'hui à Thiès aujourd'hui man je que man j'ai un bilan positif fi ma nekk boo xoolee te aujourd'hui Pierre rek moo si mujj toog naa nii pour benn un grand commerçant boo xam ne de sax mu ne xam naa yow yaa ngi mar ko as maa ngi si jàmm ma foo nekk mu ne man de dama amoon dama doon dama amoon ceeb benn stock ceeb boo xam ne aw ma si soxla mu ne yow laa ko yéene ma ne ko dama nga ko yéene ma ne ko est-ce que mën nga ma ko yóbbul Thiès wallahi lazim dem la ko wàcce Thiès amuñu mu salax ceeb bi

dem leen dans les hôpitaux fu si nekk ngeen def fa saako ceeb man c'est comme ça que alors Habib maa ngi gis euh, Thiala nga maa ngi gis benn photo sànq image boo xamante ne yow ak Idrissa Seck yéen a mhm. euh, daanaka gis nañ ne kanam yi belli nañ maanaam yéen a ngi suuri yéen ñaar. Mhm. alors tey li nga xam ne moom mooy euh, coalition Benno Bokk Yaakaar yow nga ngañ ci Idrissa nga ne Idrissa Seck taxawaay bu nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar intérêt moo ko fi dugaloon alors lan moo waral loolu le taxawaay boobu wala gis. Euh, gis-gis boobu xanaa loolu gisoo ko woon avant euh, Idrissa Seck di quitter parti bi wala euh, coalition bi. non man de à toute sincérité affaire bettu ma parce que la preuve mooy bi ñuy dem campagne boo xoolee campagne bi sax man maa ko animé man dépensé naa si xaalis bëri ba jël naa sama photo la preuve gis nga hier def naa loo xam ne lu musul def parce que le début bi def campagne comme président defoon nañu jiital réew mi yaa ngi ko ma jaatara jóge ñëw seet ma sama siège. jo maa ngi fàttalu bu du siège son garde ko reproché sax dañu sàcc portable am sa mbulu siège pour dire mbooloo jeunesse bu ko teeru foofu c' était extraordinaire le président ne àndal ak ñoom ñu ànd même le début amoon naa quelques doutes mais xam aussi bu mu ko def lu woon boo xoolee même pendant la campagne àndu ak ñoom man dama doon defar sama campagne boobu mais tandis que fu may dem rek pot photo les les candidats lay lay porté xamoon naa ko dès le début et aussi man Idrissa Seck bi ma seesee sees na ma sama kër ni waxtaan mu ne ma bon écoute euh, man ne euh, ko président man de lenn laa xam ne nous avons une opposition jeune qui est là nous sommes de la même génération ñoom Sonko yëpp xamante nañu lenn laa lay ñaan rek actuellement def ngeen li ngeen war a def léegi laissez porter ñu jàppale leen ñu dooleel leen ñu ñu mun affronter cette opposition qui est là mu ne non on peut pas vous laisser comme ça mais nu mu tuddee président Macky rek j'ai vu qu'il a senti j'ai vu qu'il a un peu changé son visage. Est-ce tenir ci kanamu Macky Sall mais pas Idriss Seck. waaw que président non mais président moo wax ni dañuy topp si ginnaaw Idriss Seck parce que Idriss Seck mooy le jamagan nay aye aye aye aye aye jamagan nay aye